senegal métti boo xam ne ñu sàcc sa ñaari xar nga topp ci une di seet benn ku tiij ñaari xar rek mbëbës ba nekk di ko dóor di ko dóor di ko dóor xam naa bëri gisoon nañ fi góor jigéen bu jigéen bu ñuy wax lesbienne moom it mu demoon kër jàmbur di fa sànni ay xeer fële tamit yaayu Malick dafa dem ba tiit ndax ñooñu rey doomam dañu ñëwaat gincës gincës li ma koy contre contre yëpp ndax man daf maa attaqué di attaqué samay abone waaye li ñu ko def du dëgg du yoon xamuñu kan moo ko def Khalifa rappeur moom mu génn mu ne waal Seck ñoom Wally Seck moom moo bëggoon rey gincës ñoom ñoo ko agressé loolu Khalifa yaa ngi koy wax te amuloo ci ay firnde. gincës est-ce que yaa bëgg na boobu si dëgg la nekk. moo ko tooñ te saawaay xola yow nañ àndal waaye seet ku danger la gis nañ may la su waay brûlé boobu noonu ñu tooñ ko ba pare ko fan Sénégal dafa am benn xew-xew bu bees benn phénomène ay nit yoo xam dañu yaakaar ne ñoom ñooy yoon ñoom ñooy police fële ci kër Massa dafa am benn xale bu góor bu tudd fakki na lu waral loolu dañ leen sàcc seen ñaari xar ñaari xar rek mu tax ñu jàpp nit dóor ko ba mu dee waaw ndax dafa am benn maire bu génn muy expliqué moom nee na dafa tëdd guddi dégg xar bi yëngatu mu yee doomam ne ko xar yaa ngi xeex ndax moom dafa ragaloon sax dem waaye ba ñu ñëwee nekkate xar yi jël na leen benn borom sarak moo jël xar yi ñu daw moom ñu daw xool xool xool gisuñu leen juróom-ñaari fan semaine ñu topp di xool di seen xare gisuñu ko toog benn jour am benn xale bu jigéen ne leen xam naa kan moo sàcc seen xar loolu lay ndax xale bu jigéen bi moo indi moo indi ay nit kër Malick kër Massar Malick dañ ko fekk mu tëdd di nelaw ci moustiquairam yaayam mooy nettali yaayam mooy nettali ñu génn ko ci moustiquairam dugal ko ci ñaari clando kon nit yi juróom-benn lañu ci li ñu yaakaar di ñu wax violation de domicile ndax kër jàmm nga dugg fa jël nit ki yóbbu loolu mooy kidnappé nit kooku tam beneen crime la yóbbu ko mëbës fi mbalit ba nekk di ko dóor di ko dóor di ko dóor xam naa nag dañoo dóor ba sonn waxu leen fan la xar bi nekk ba ñu xamee ne kii sonn na ñu indiwaat ka Kër Massar yaa ji dem police ba ñu ñëw ba police di ñëw ci lañ ko gis gisaale soxna si weegee Malick soxna si fi mu nekk mu ngi gendarmerie am na ay nit yu ñu jàpp defe naa jàpp bu mu ne ñeenti nit na leen mais li ci doy waar mooy nan ngay tuddee sa bopp DIC DIC mooy division des investigations euh, criminelles kon dafa am ay nit yoo xam ne ñoom yaakaar nañ ne ñoom ñooy police c'est vrai que sàcc baaxul sàcc day tas a fayal sa bopp fi métti boo xam ne ñu sàcc sa ñaari xar nga topp ci une semaine di ci li famille am wax dinaa leen wan benn nijaay benn cousin buy wax yaayam mi ngi wax musuñu ko yóbbu police musul dem tribunal casier judiciaire vierge maanaam kenn su ko topp ci dara kon dañ suñu njot dafay rafet ne kii deful loolu même bu fekkoon ne moo ko def su fekkoon ne moo ko def sax warul tax yéen ngeen jël ay clando dem kër jàmbur ci guddi tiital yaay yaay ji dafa tiit ba mënul yuuxu ba ñu demee police ndeysaan fekk ñu fa kenn loolu tam war nañ ci jóg ndax bu fekkee ne police am na ñu fa nekkoon te su guddi gi dinañ dem ci kër xale bu jigéen bi mu wax leen kan ñan ñoo yóbbu xale bi waaw xale bi tamit bañ ko jàppee sonn na trop jot ñu ko sax yóbbu hôpital dañ ko jël rek yóbbu ko daal di ko defeere loolu tamit doy na waar nit ki même bu fekkee dafa sakk sax bu fekkee dafa feebar ah bu dee dafa feebar dañ ko war a yóbbu hôpital ba pare koy xool ci yéen dañ ko xool ci ñun mën lii dal xale bi mën nañu dal nit mën na ñëw jiiñ ñu dara dóor ñu ba ñu sonn ñu dem police ñu ne sàcc la bu fekkee ne sàcc la rek ñu ne ah sàcc la garaaw déedéet dañ ko waroon woon sax yóbbu police kooku directement dañ ko waroon yóbbu li ñuy wax rek ne mooy fan yu mel ni daf fi bëri gisoon jigéen bu jigéen bu ñuy wax lesbienne moom it mu demoon kër jàmbur di fa sànni ay xeer jàpp benn meer de famille boo xam ne dafa sonn amul jëkkër yaayam faatu lépp faatu mu ne dafa nopp doomam bu jigéen bi ñëw ne dafay nangu jabar yaayu xale bu jigéen bi dem na police lu ne def na ko dem na ci chef de bi waaye xale bu jigéen bi mel na mel obsédé ñëw ànd ak ay góor di menacer maire maire bi dafa dem bu tiit fële tamit yaayu Malick dafa dem ba tiit ndax ñooñu rey doomam dañu ñëwaat waaw yow li ngay def def nga li ngay def ba pare doy la ñaari xar rek ñaari xar tax nga ñëwaat ci guddi gi na ne da ngay taal kër maire waaye ñun ban senegal lañ nekk ñii de jàpp nañ leen waaye kenn waru leen bàyyi dañu waxante dëgg kenn waru leen bàyyi ndax war nañ def enquête ñu xool ñoom fan lañu jëlee màqaama ba yaakaar ne ñoom ñooy police gisoon nañ fi temps yi tamit Géejawaay la xamu Pikine kuñ fi jàpp yàqate kanam gi dóor dóor yu métti ci ay affaire ci affaire cantine ndax moom dañ ko jaay cantine ba pare muy continuer di fay di fay juuti ba mu demee ki ko jaay tànk cantine bi soixante mille mu ne lu tax may fay ci loolu rek ñu kot ko mais dañu ko dóor dóor dóor métti ba kanam gi yëpp yàqute après ki ko dóor di ko ñaawal dañ ko mayoon liberté provisoire kooku xaw ma fan la mujjee gisaat nañu fi gin Thiès gin li ma koy contre contre yëpp ndax man daf maa attaqué di attaqué samay abonné waaye li ñu ko def du dëgg du yoon xamuñu moo ko def ki ko dóor bu fekkee ne dañ ko dóor ba yàqati que am na ñoo xam ne dañ ne accident la waaw ñi ko ñi ko yóbbu hôpital ko oto moo la mais moom dafa ne ko dañ bu fekkee ne dañ ko dóor loolu tamit du lu rafet ndax mënoon nga fi rey Sénégal ñun xamuñu rey gis nañ fi nag um, Khalifa rappeur moom mu génn mu ne Wally Seck ñoom moom moo bëggoon rey Guin ñoom ñoo ko agressé loolu Khalifa yaa ci ay firnde loolu bëgg boobu si dëgg la nekk ko tooñ te saa waay yow nañ àndal waaye Seck ku dangereux la gis nañ may la suuf waaye bëre boobu noonu tooñ ko pare agressé yow koo xam te ànd ngeen police ngeen dem toog ngeen wax ba pare mu jég saa ne la man mii sax mun naa la rey si kanamu policier mais la moo tax policier yi foofu la li alal jaral na lu ne. loolu Khalifa ci ay loolu tamit loolu ñu tuddee diffamation gis nañu gince si boppam suy wax musuwul wax ne Wally Seck la ba léegi waxul ne Wally Seck moomu dóor dafa ne rek porté naa plainte enquête banque mais daal li ñuy wax rek mooy.